تقرى إلى الله وحده yanaalul maqaama la raja ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañ ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne leen da jiyéen la maay rabaal nga tegal ñu ko ci loxol si sang bi Cheikh Ibrahima mu tegal ñu ko ci loxol sangam wëral yàlla Muhammad ak Cheikh Tidiane ñu dali leen ci ñii ñaan yàlla képp koo xam ne jógee nga fa nga jógee ba dikk ba fii yàlla na yàlla nangu jàng nañ ci alquran yu baddilu laahu sayyi'aatihim hasanaatihim am na ñoo xam ne yàlla seen ñaawteef sax daf leen koy soppi yu baax yàlla ca bokk su fekkee lii ñu def baax na. yal na ko yàlla fay te bu koy fulande bu koy fay yal na ko fulande xatala rahmati su fekkee ne am nay tarkees tarkees tarkees ñu ngi sukkandiku ci yu baddilu laaw sayyi'aatihim hasanaat yal na yàlla remplacer ñu suñuy ñaaw teef ay baax baax ñu ngi lay ñaan yow yàlla yal na man mii nga suñuy ay ñes moom moo doon seen nawle noonu keroog ba mu tasee na ko luy sa mbir mu ne ko dëng bugg a jub réer bugg a xam ñu def xaar bokk na ñu ci dër may leen yéen a ko defar bi moom ba mu ñëwee daf ne damaa dëng bugg a jub damaa réer bugg a xam kooku demee nag ba nga ne bokk na ci góor yi yàlla yi kon ñoo leen waroon a fexee ñu leen di sant waaye yéen ngeen jël kooku di ko dugalaat ci xam ne ci góor ak yàlla kon ñu ngi ñaan yàlla mag ñun fi jaar yàlla ñu fa yàlla jaar yàlla ñu fa yàlla jaral yàlla ñu fa yàlla yi tey biñ demat sa kaamil ma ne leen maam xaalis bi tey alaaji xaalis bi tey ca daaru ay doom jàng alxuraan nga tere ko waaye moom barke barke bi jëf xale yi ba mokkal mu seet naka la ko war a mu dem ma laaj damaa bëgg nga ma koo naan te nga indi xaale nag sa ñeent doom yu ñu seetloo kàddu gi ku nekk jëru ko ñu pare ko ci saas suñuy kat doomu na maa leen tey si ñu ngay xalamu di yuuxu ngir kat ndax ñoom kenn du ci gerte mbokk la boo ko seetee kenn buñ mu buñ mu gisee rek duñ la gis ñoom ñëpp lax si nañ ci guddi mokkal ak alquran di ci di borom xam-xam góor góor nag ba kenn rek lañ ciy wax. lii wane ne comme ni doon góor gannaaw gi. mooy Modou Ndoye Mouhamed Ndoye la tudd yaayam Ndoye lañ ko daan wax ni dàqal ko ko yaayam Mouhamed Ndoye moom itam dafa am gàcce suñu te sëñ bi ma nag dafay wax ne ma jëf bi mooy tax mooy tax ci man pour sama kër ñu rey ndaw mu ndaw nag nëbbu ko comme déggee mu dikk ci penc bi ne ana ndaw wa ñu jëlee ko boole njeeje ndeke dañoo rey foofu ñaari na mun a xaaral ñoom ñu naan yóbbu daal mu téye ba mu dikkee seeret xam ne ah, bu seeret gën na gaaw yàpp la si mu dikk rek daal di raw mu ne ne indil yàpp wii balaa kenn nañ peese dinaa peese li may peese ba pare ngeen fekkee ne kenn ci doomi Maam Aliou Guèye yi ci roy boo xam ne roy na ko doomi Maam Aliou moo dem bay sant Seydou Diagne mu def. kon ñooñu seen alquran dellusi na seen xam-xam dikkaat na seen tëbbu xamaat na. Baye Mor Fadam Ndiaye mooy Baye Baye Ndiaye dafa mas a xam benn sujet bu mu yàgg jàppaale dem toogam gontu di ëtt bi waaye soo muy dëpp ak moom mu ngi sujet bi daal mu ngi mel ni ànd ak sa bopp biñ jubee kër gi nag. gën a bàggee moom sukkeen bi nga def mu wépp bu ci dem a topp buñ jubee kër gi nag bu ci demee na xaru rek daal di ko tampon mu daal daw fekk maama laa jëlee taxaw ci buntu jàppal ni ngay xaar tuuti mu ne ko suma sukkeen a bëri jàppal mu ne seexul jàng fu dal di ko mu ci mën a xaan ñu ne xaj bu ci baa ngi nii ñu ne fekk bu ci woo kooku nga ne daw jéem la tey su fi Abdou Mbaye ne xool gannaaw kër seen naam mu ne dafay toog rek daal di gis buntu daal di tuub ci ko téere bi kenn su ma waay buntu buntu buntu wati sama téere yi waay mu mu toog téye kursam rek buntu yi tolloo téere yi rek ne wàtt rek mu ne maa ngi defaat fu ne mën di gëm si saa si la buntu yi daal di rek ngeen di bëgg démb la dee ci kanam ñuy xam jagle ci péeb yàlla bi ba lu ñu wax yàlla mu def ko am na de am na de yaa ngi yenn yoo xam ne lu ñu wax yàlla mu def ko yàlla yàlla boole ci ñun yàlla bu ñu seytaane këf yàlla bu ñu bakkan këf yàlla bu ñu àddina këf àddina moom dafa cher àddina soo bëggee àddina li nga xam ne yëpp nga jox ko pour mu jaay pour mu jaale boppam bu soo ko joxee mu kontaan xaat lépp nga koy jox sa juddu sa li nga fekk lépp nga koy jox ngir xam àddina rek maa ngi kontaan xaat lu alquran wax day dox ci naaj yu tàng seen mu mel ni ndox fa nekk li olof tuddee juddu mu ne bu demee ba léegi foofu fekk Janganlah maa indahu koo fa Moussa mu ne loolu ci gën a garaaw nag dem ba foo fekk fa la mu fekk fa yàlla Moussa ñu ne benn waay benn nit def ko romb jëm marché mu daal di génne xaalis dafa am marché ba jëm mu am na ko ñaari tënk démasqué mu soog gis benn xajal jëndu dugal ko saako rek nelu ñun ñëwee ba romb garab bi waaye nga ba romb dëndal mu ne mu ngi nii mu ne ah wax indi mu ne déedéet fële laa la ko joxee mu topp ci kawam waa xajal dem nañ ca ngend ga mu daal di nuyu saako bi at bi nga bëri mu ne ko waxuma la lu bon li ma jox waaye fi mu ma ko joxee <laughs> waxuma la lu bon li ma jëndal semence bi yéen a mel noonu yal nañu yàlla dimbali yal na yàlla barkeel suñu yëngatu yal na yàlla barkeel suñu dal yàlla buñ jaay suñu bopp àddina yàlla buñ jaay suñu bopp àddina yàlla buñ jaay suñu bopp àddina suñuy jaay sax dañ ca xalaat nañ jënd yàlla xalaat dama waaye àddina soo ko amee amul njëriñ te doo ko xam moom day naan day lekk li nga jeex comme jeex sax juddu या कहते रहे कि कि लोग के बहे कुछ नहीं ने ऐसा सन के कुछ ने को लो हम सोला याला मन ना को फजन को याला है मनम को गोला रफा दिन को बगे याला मन ना को याला नहीं याला रफा याला याला फजन के केन को ने को सोला fi place la boo xam ne bu nit war a mën a amee soxla ci fajoo moom la yàlla tam ci kaw suuf si mu nekk place boo xam ne man tànnee nàkk muy place am wàcceel Ibrahima ñetti Tijaan bii fu ñu mën a jëriñoo la waaye nag mu mu weex soo ko sonee téléphone bu mu ñuul ngeen doon fi mu nekk ci ndaxa kële fukki tomb mën naa nekk ci mbubb bi moo bu mu ñuul waaye yow borom mu mu photo dina xay yow mu yàq foo yàqoon ni ñun suñu bàyyi fañ baax fooy laajte man maay kan man maay kan lan defoo lu ma war a def nit ku ko war a defoo man maay kan waaw ndax lii war na ma wala warul ma la nga cay séntu lu bëri bëri bëri baaxul su baaxul sa baay nekk su baaxul Cheikh Ibrahima nekk su baaxul yéen ci yàlla moom la nekk ca su baaxul Cheikh ci yàlla nekk ca waaye newuñ ca mën na nekk ci li nga xam ne moom la ñu wóotee bon yoonu ci bi ne ma ñun affaire yu bëri an yasila al insaan wudda baax bi gën a baax nit jokk koo xam ne xaritu baayam la woon wala xaritu yaayam waaw naka la boo jokkee sa baay nag te lu baax la daan def nag kon nag moom mooy baax bi gën a baax kon yal nañu yàlla may ñu doyloo li suñu baay yi nekkoon ba yegg ci maa xam ne tool yi nga xam ne xeetu la maa ngi rafetlu fii la baay toog ci kóosu mu nekk te ñu sëñ bi maa leen sori dégg fekke maanaam sama nga ca gànnaaw mbir mi daal kon kooku ñu ngi doon caaxaan Serigne Aliou Cissé ñu ngi doon caaxaan Ousmane Ndiaye ñu ngi doon caaxaan Baye Mbaye ñu ngi doon caaxaan ak ñeneen ñeneen ñeneen parce que nag Baye laaj maa bu nga xam ne moom ci maamalaaj la nekkoon waaye na jàpp Baye rek la ne Baye la ne maamalaaj damaa bëgg su ma la gisatul ma jàpp ci kii loolu tam moom moo jiitu man ñëpp ci Baye ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla xamal ñu ñooy ñan yal na yàlla xamal ñu ñooy ñan yal ni fi ñu jaar ba nekk fañ nekk kenn du fi yàlla nekkal man nag maa ngi leen sax mi aw mu suwaa naa kii تضرع إلى الله وحده yanaalul la raja ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dina ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne